ci et c'est important il faut que joie de vivre bobu mun transposer wu ci sénégalais yépp. merci alors euh, di nuyu également les chroniqueurs Serigne Saliou Gueye, mang lay nuyu Césac. waaw nee na lay fay di. bu len tontu Ñom sen ñom Borbe wa borbe. non non mais grave rek après ma ma jabaxal leen benn quoi di di nuyu vraiment tous les téléspectateurs euh, ak téléspectateurs du Sen TV ak ñi au niveau de Zik FM bon di nuyu suma rak xafoor Aliou ak euh, suma jigéen Aissatou mon ami de tous les jours <laughs> bay Fall euh, Rijal Omar Fay bon di wax ne <coughs> ne nañ dama <laughs> c'est normal d'abord on est en été et puis en plus aussi euh, montrer aux Sénégalais que bon la prison aussi c'est pas une fin en soi Ouais. que moi, je ne suis pas sorti de la prison fatigué. Mm Bon, j'avais le moral en prison ah et c'est ça qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. Vraiment aussi, je profite d'avoir une pensée particulière à tous les détenus, vraiment de Rebus. Mhm. Di ñaan Yalla ñi fa nek yépp vraiment Yalla may leen tawfex ba ñu joggé fa mëna dem aussi sen jabot. Comme ni ma ko nit ñi doon lay temps mu fa nekké man aussi vraiment ma ngi ñaan Sénégal yépp vraiment ñu ñaan ñi nga xamantene ciab leen fété ginnaw vraiment yalla dafa leen taw feex ba ñoom ñu mëna dem euh, vraiment sen famille parce que je sais que ñen ñi lañ fa nek aussi xam naa ne na quoi. Mhm. voilà merci. alors avant même ñuy continuer nuyo bi di di jaale rek euh, peut-être loolu la sax euh, démarrer euh Assane Diouf sama sama xarit. boobu de je l'ai entendu euh way juram bu jigen mo génn adina ah. donc di ko jaale bu baax a baax di ko ñaanal. Euh, suuf woyof ci kawam mandak également suñu collègue momi tamit euh, perdre wajuram donc mon tamit ñu ngi koy et puis euh, me perdre également sa benn tante qui était euh, une amie de la famille mom tamit de Rufisque Dior Dior Ndoye ñom tamit ñu ngi jalé famille wam également donc di leen di leen jaale ñoom ñoom ñëpp Aliou Sow maa lay nuyu. tey nene Aïcha euh, Dis-le pour cette invitation voilà du euh, donc euh, le DG donc Kheucha Touré Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. beaucoup de sympathie pour sa personne un garçon très courageux voilà c'est la fois que je le rencontre ici et puis naturellement donc Srin Saliou Souma, Souma, bi hein waaw yàlla sàmm ñu si dëgër suñu cër di nuyu Omar Fay leeral askan wi bu baax a baax le grand et puis naturellement l'assiste donc euh, euh, Aïssatou Diop Fall moom mm-hmm. suma suma xarit la suma suma rakk la même si ça se voit pas trop voilà donc euh, Néné maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay sant bu baax a baax di nuyu kilifa kilifa kilifa des médias yëpp di leen sant di leen gërëm kontaan naa juste un petit coup à à maman qui est à Alfortville en région parisienne, ma maman et puis mes enfants aussi qui sont entre la Suisse et entre Bâle et, Fribourg, le sud de l'Allemagne. voilà Hélène je vous fais des bisous na euh, na je suis content et très fier d'être sur ce plateau donc de de Ndoumbelane. c'est partagé c'est partagé Aliou dis le, dis le, dis le jaajëfal bar. j'aurais dû commencer par toi Aïssatou Dis-le nous, ma très chère sœur. <laughs>

<laughs> defal nañ ko benn xëy <laughs> man ak Omar benn matin ñu xëy suba rek si moom xam na ci dara <laughs> moom xëyee nañ ko benn moom moom mas nañu moom sunu diyo bi moom moom mas nañu moom mas nañu Omar nag moom sama xarit la donc euh, ñu ñu ñu am convergence yu bari donc par jour dañ déggante presque cinq ou six ou sept fois ah par jour te on se parle des heures au téléphone donc loolu moom loolu du tey donc euh, dit euh, nuyu bu baax euh, le jeune homme Serigne Saliou Gueye <laughs> notre grand frère Je je savais pas que dans cet hôtel là il faisait des cures de jouvence donc <laughs> bah, je suis heureuse de, de l'apprendre hein, et, et, les Sénégalais avec moi alors euh, di nuyu aussi bu mon frère Alisso qui a bien raison on s'apprécie énormément même si on se voit pas beaucoup nous, en a que ma tête de turc préférée <laughs> euh, Abdou Khafour Touré le directeur général de je ne sais plus quelle euh, entreprise <laughs> encore j'ai oublié Il y en a tellement il y a tellement de DG qui ne servent pas à grand chose qui de temps en temps sortent de leur hibernation pour euh, <laughs> venir faire, un petit service minimum il faut bien justifier le salaire etc donc nous comprenons euh, l'exercice auquel vous êtes. Aïssatou pour looloo tax mu ñëw nii. voilà non looloo tax mu ñëw donc euh, mais xam na xafoo loo tax mu ne ko xafoo saa xafoo na sort du bois que quand affaire bu xaw a buy taw moom du génn du xalaati sax takk parapluie day toog calmement kalu ba gars yi génn def lu ñuy def ba pare mu ñëw gis comme ni nga gis nii euh, takk lunette. de petite lunette quartier Euh, il se met en petite lunette quartier takk euh, chemise Pierre Cardin et puis comme c'est un grand rhéteur donc fait euh, fait fekk dot na déglu le gars yi di wax mu jaar congélateur bi voilà qui est Abdou Khafour Touré qui est mon grand frère et qui est l'un de mes pires ennemis mes meilleurs amis je je salue tout le monde voilà. merci Aïssatou alors. Euh, Omar Faye Rijal. waaw l'homme de Rufisque. la wax lii. ñu lay nuyu. Rufisque. di nuyu Sénégalais yëpp. ñi nekk fii ak ñi nekk bitim réew. di leen nuyu. ay setu bu nit ñi xamoon sa xol. dinañ xam ne ñii di wax dëgg ñoo yor xol boo xamante bu ñu yoroon mi ko may doomu aadama yi te am nga xol boobu. Serigne di nuyu ab directeur di def jaaykatu bu am terrain jaaykatu terrain c'est grâce à vous société bi yor ko ak Diaw il est candidat attention il peut être un candidat dangereux pour vous. il est candidat oui il est candidat.

saa yu ñu xewlee ba si Zikar Baye Fall yëpp daje Paris dina ñëw. mën na ko ci Bougane rek laa yem mu ne ñu ne ma si lañ la gërëm la. ndax mënuñu nekk Paris duñu gis ambassadeur duñu gis consul. te chaque année ñu leen suñu carte. tubaab bi ñëw autorité tubaab bi dafa ñëw te bu ñu toogee Bougane rek la ñuy gis. te maa ngi a di wax ñoom ñoo ma ko wax. Mm. donc Bougane lebal nga ñu jara lebal mooy Fall li ñu fëkk jëf. te loolu leen defal bu dee benn yoon dinañ la ko fay. ñu ngi lay gërëm di la sant te bàyyi faale ma ko wax. yal la yàlla fay ci loolu. te loolu mooy nit. du dëgg. beneen bi mooy yéen jigéen yéen xale yi am ngeen candidat. Hmm. waaw muy Anta ñu koy wax sax. Abacar Ngom Anta ah, Babacar Ngom. waaw waaw benn candidat mi yéen nag ah, aussi wane leen seen bopp. waaw dëgg la. man de c'est la première fois Serigne dama éclairé mosuma gis xale à son âge bu nek candidat. waaw ça va des élections présidentielles. ça moom c'est une euh, bouffée d'air. candidat yi am nañ solo. waaye mm-hmm. ki xale la. Mm-hmm. doon jigéen. Mm-hmm. am yu mu jëf ba ba nek candidat. et puis capitaine d'industrie aussi. do lay wan sen bop yéen jigéen ñi. dëgg la wax leen si. yéen jigéen do lay wax. dinañ si chaque fois bu goor ñëwee ñu wax mais wax len ci dëgg la wax. donc lolu aussi. dëgg deug am amna am na solo parce que tu as dit que aussi les jeunes. Mhm. parce que parce que parce quand tu vas France aux États-Unis ou ailleurs. Mhm. mais c'est des jeunes de 35 ans qui ont des mhm. grandes responsabilités. des jeunes et de 45 ans qui sont devenus présidents de la République Sénégal. je pense qu'il est temps aujourd'hui comme ça se passe les mosquées et partout. ñu am ay am 18 ans 20 ans de du am. jot à que am un esprit de sagesse sang bi fi la nek la fi la nek mais ñoo un esprit de sagesse. Mm. nous avons besoin de ça. Mm. et dans le débat incha allah. dinañ ci dinañ ci développer lu bari nee na maa ngi nuyuwaale sama yaay mam Jaara Faam nee na nee na tuy benn bii. ah <coughs> wala nee na sama xarit waaw nuyu na sama benn dom <coughs> honorable ñu ngi lay nuyu way Khadija <laughs> ma fi Khadija. je te salue ma fi maa ngi nii. nenu <laughs> maa ngi suñu yaay ji maam Diarra Fam honorable député euh, waaw sama yaay sama sama lépp euh, ajaratu honorable <laughs> actuellement mi ngi defar quarante jours am yi ñu koy fóon